bismillahi wa ala millati rasul man hajil xam naa bi sax euh, suba la waroon a génn waaye li may actualité tax euh, dafa concerné nag euh, ak Ablaye Wade ak ñi nekkoon ak moom te te xaj na nekk bi nekk mag te nekku fi mën naa am te ñoom it bàyyiguñu politique maanaam moo tax man maanaam kenn ku ci nekk xam naa dem ak sa conscience waaye ki nga xam ni mooy Madické moom Madické moom Souleymane yëpp Souleymane Ndéné ku ci nekk Souleymane séq na mën a wax ak moom Madické itam noonu waxuma sax ci wàllu politique maanaam ci wàllu moom ci wàllu bokk gi nu bokk réew mi ak bokk gi nu bokk yaakaar ku tedd ki ci même dimension eh, man dem jàpp naa ne Abdoulaye Wade fi ñu toll ni mais même lu mu doon doon mag mag xam naa ni bu dee ñun ñi nga xam ni dañuy bàyyi xel waxi ku tedd ki ci wàccal saxiranaa yu wàqirul kabir wàccal kabiranaa yu xenu le saxir te defe naa ne ñoom ñoom mel na ni ñoom ñaar ñu defe naa ni ci loolu la nekk si la man dana di ma dikkee itam euh, Euh, di itam ngóor si li nga xam ni moom Talla Sylla bi nga xamante ni bii agressé woon nañ ko ba mu demee ca hôpital ba moo moo moo fa boo ko waxoon ni ko euh, li ñu la def du waa kër Ablaye Wade euh, waa kër Sëñ Modou Kara la man sax daaw ma wax yu mel nii waaye nag waxtu wu nekk ak la mu laaj ak parole ya mu laaj ak expression ya mu laaj donc jarul may tudd turam waaye moom bu ko déggee dina xam moo fekkoon taal ca hôpital ba ni ko lii ñu la def du waa kër Ablaye Wade waa kër Serigne du Kara la loolu taalaa ma ko nettali waaye li ma bëgg a wax rek mooy daal xam naa ne kuy bàyyi xel waxi ku tedd ki moom wajaxal saxirana yu waxirul kabir waccal kabirana yu xam ne lay saxir waaw na ndaw ñi di wet mag ñi na mag ñi di yërëm ndaw ñi xam naa daal euh, loolu daal bu ñu ko dee bàyyi xel rek wàllu politique bi nag moom àndub adduna la ak wàllu àndub adduna ak intérêt ak pouvoir kooku moom ñaare euh, faaw yi ci xew di ànd k mel ni koy ànd ak tàggoo ak yu demee noonu mais comme dafa am leneen lu ñu boole intérieurement te mu ëpp solo mooy dund gi ñuy dund ku tedd ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul muy man mii ku mel ni man di Ablaye Wade di ma di Seydi moom di ñëpp ñëpp xam naa mi moom. Eh, ñoom sax yaakaar naa ni xañ na politique bi la waaye li ñu ci Ablaye Wade yaakaar naa ni dara mënu ko dara du ko dindi waaye man jàpp naa ni góor gi fi mu toll nii ku ko mënatul a soutenir itam jarul nga koy adressé yoo xam ni daf koy yokk euh, affaiblir daal du ko jar waaw ndax itam euh, mag dafa am loo xamante ni bii bu ko tàmmee ba mu chronique ci xol ba Eh, mi ngi mel ne rek imam boo doon tere jàkka ja ab mam moom boo ko teree jàkka ji moom eh, bu mënatul a dem ci jàkka ji ngir tële yi itam bu julli jotee day ñoŋ ñogi waaw xaj na góor gi buy wax ci lu jëm ci mbiri politique ndax nekkul ay question yu doom ak i bàyyi ak yu demee noonu déedéet du loolu maanaam mbirum war ma la yow ki ma ko waxee léegi rek ci mag ak ndaw moom féexal ko mooy gën daal loolu mooy yërmande waaw bu dee man nag ku mel ne man dañ dul am choix ñun ba mu accepté rek accepté les radiyallahu anhu Serigne Saliou ci titre foncier ba rek Touba rek dégg naa sax fi ñu toll <laughs> gaañu soppee nañ ko neneen bi bi communes yi xewee lañu ko lañu ko tas doxalee ko neneen waaw ci seen politique bu daal seen politique de gouvernance bi yi ñuy def waaye yooyu yëpp daal xam naa ne góor gi daal moom dara waaw yokk ci moom yërmande daal wàññiwul dara moom loolu laa ne woon li moom faaw may jàllale ko bu ko defee nag yeneen yi ci des yëpp moom waaw politique bi daal jarul yenn yi vraiment loolu laa ne woon dinaa ko jàllale Omar li ci des xam naa ne dinaa ko kii li nga xam ne moo mooy sama travail quotidien travail bi gudd incha allah